بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom sant gu kawe te tolloo ak màggaayam moom sunu boroom ak kawewaayam ak sori goo xam ne sunu boroom sori na ko lépp sikk ak i ayib ak i manki manki nu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di nuyob waa aljanna ca bu ñu tàbbee ca biir kër ak teraanga jooju yàlla sunu borom defal nu ko muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nasalu allah subhanahu wa taala an yataqabbala minna innahu huwa alsamiu alalim wa an yatuuba alayna innahu huwa altawaabu alrahim nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla borom bi nangul nu ndax moom kat mooy jéggalaa kon bi mooy yërëmaa kon bi yàlla na borom bi subhaanahu wa taala nangul ñu ndax moom kat mooy ki nga xam ne lu waay wax dégg na ko lu waay fas xam na kàddu yi ñu nar a jël insha allah kàddu yi fàttali la ak soññi kàddu la yoo xam ni bu yëkkati ko ki koy wax moo ko gën a aajowoo ñi mu koy jox dafa fekk ni doomu aadama mënut wéet di wax ak boppam ndax su boobaa li ñuy wax mooy ma ngay waxtu te waxtu léeg-léeg ci ay barab ku am xel du ko def waaye ki koy wax bu jàkkaarloog ay mbokki jullitam di leen ko wax la muy wane mooy moom boppam la doon waxal mu waroon a wax ndànk mu mel ni koy waxtu waaye bu waxee ca kaw bu jariñoo ba noppi ñi koy déglu di ay mbokkam yu gëm yàlla amaana ñu mën caa jariñu nu ngi ñaan suñu borom loolu ci sukkandiku ci li mbokk yi doon wax sànq jazahumallahu xayran defe naa ñun ñëpp ci lu waxtu yi gàtt gàtt yëgaat nañ ci ni alquran kat lu foor la lu màgg la lu kawe la waaye yëgaat nañ ci ni noonu lislaam yi ñu ngi def lu ñu man ci xeex téere boobu ndax jamono jooja fekk na ñun ñi gëm yàlla ñi ngi def lu ñu man ci dundal téere boobu foofu mooy suñu intilaaq ginnaaw bu ñu yégee ni noonu yàlla yi ñoom ñoo ngi def lu ñu man ngir fay leeru téere bi ndax fekk na jamono jooju ñun ñi ngi def lu ñu man ngir dundal téere bi am na kàddu gu am solo goo xam ne dinaa koy faral di wax dinaa ko baamtuwaat mooy la doon màgg ca yàlla subhanahu wa taala yowma xalaqa alsamawati wal ard keroog ba tey ila yowmina hada ila saatina haadi mi ngi màgg ci yàlla ba tey la doya di woon fa yàlla subhanahu wa taala yowma xalaqa alsamawati wal ard ba tey mi ngi doya di fi yàlla nit ñi nag ñoo baaxoo léeg-léeg ñu xewal dara bu yàggee ñu xewil ko léeg-léeg ñu fooral dara bu yàggee ñu dindi fooraay ba léeg-léeg ñu réyal dara bu yàggee ñu tuutal ko waaye borom bi moom subhaanahu wa taala yëgal ni la réyoon fa moom balaa muy sàkk asamaan ak suuf ci lu tolloog juróom fukki junni at comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca gàpp booba la fa réyoon ci sunu borom mooy téere bii di alquran mbokk yi lu rëy fa sunu borom rawatina mu mel ni alquran lu jaadu la bépp xol boo xam ni bu gëm yàlla la loola am place ca xolam mu des sual bi nag ku nekk war koo laaj boppam ban wàccuwaay la alquran am ci sama xol loolu jurut ngay wax ban wàccuwaay la alquran xam ci xolu jullit ñi lijjante sa bopp rek yow ndax foog naa ni ku ne bu lijjantee woon boppam bu amee résultat bu baax benn benn yooyu ñooy daje nekk mbooloom jullit ñi sunu boroom mi ngi wax ci suuratul xajj ñaari aaya yoo xam ni buñ ko seetantalee day war ne rëyal lu yàlla rëykat lu lu yàlla rëyal lu foor la sunu boroom ni daalik wa man yuadd تعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب li ñu xam daal mooy li ngeen war a xam daal mooy ku màggal yi nga xam ni yàlla moo ko fooral màggal ko loola mandarga la muy wane ni yow sab xol ab ragal yàlla ma ngi ca mu ni dalik wa man yuazim xurumati llahi fa huwa xayrun la liñ ma war a xam mooy ku màggal yi yàlla ormaal na yëg ni loola moom lu baax la ci moom lu gën la ci moom te yàlla lu mu wax ni lu baax la ci yow lu gën la ci yow rek loolu lu wér la alquran mbokk yi bokk na ci yàlla màggal fooral ko alquran bokk na ci yàlla ormaal kon kàddu yi risalatun ila ashaabi alqulubi alwaaciya yóbbante la wala yóbbal bu jëm ci xol yi nga xam ni yàlla baaxee na leen bu ñu déggee njub dafay jafndu ñu ñàpp ci seeni xol bañ mën koo jariñoo yàlla suñu borom boolañ ca ñooñu borom baa ngi wax ci suurtu qoof inna fi dalika la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid lii ñu doon wax day li yëngal xol yi ñi gëm yàlla ci suurtu qoof nga xam ngeen ni saar woowu saar wu foor la wu màgg borom bi lim ci doon waaree ñi gëm yàlla dani inna fi dalik nekk na ci yii ñu doon wax ak yi ñu doon jund la dikra fàttaliku ak waaru ak defaroog jubbantikoog joyantiku liman kaana lahu qalb ñeel képp koo xam ne am na xol laa shakka ni kullu naasi lahum qulub doomu aadama yépp am nañ xol kon ban sens moo nekk ci borom bi di wax ko am xol laa shakka ni xol dana borom dana ko am ba noppi du ko jariñoo lahum qulubun laa yafqahuna biha am nañ ay xol de waaye xol yee jariñu leen parce que xol dafay taataan njub togg ko ci biir xol ba mu ñor mu chargé waat ko cër yi mu nekk énergie bu ñu mën a jaamoo suñu borom foofu la ñuy gën a baax xol rawee ñi feebar xol inna fi dalika la dikra liman kaana lahu qalbun ki nga xam ne yàlla def na xolam baax na set na aw alqa sam'a wa huwa shahid wala boog bi ñuy wax moom mi ngi déglu alqa sam'a mooy sànni na noppam di déglu waaye wa huwa shahid fekk mu teew ndeke doomu aadama dina dina fekkee di déglu te fekk teewut ndax nopp yi muy chargé xol la koy jox jamono jooju nag su fekkee xel ak xol ak nopp ñi ngi amul jokkoo doomu aadama buy jug di jariñu waaye jamono bi noppi di dégg fi mu war a jaar ci xel doo ko tàbbi ci xol su fekkee xel maa nga ca leneen su boobaa du tàbbi ci xol mbaa bu ca tàbbee day dugg génnaat moo tax ñu bari ci ñun danañ dégg lu leen mën a jariñ wallahi mën ngaa dégg aay joo xam ne dañ naan niw diw déggoon na ko sax mu daal di cay xëm nga dégg ko yow deful benn jeexintal ci sa xol benn jeexintal defu ko waxuñu la sax boo ko déggee xëmal comme moom parce que nit ñi ala maratiba waaye nag lu mu gàtt gàtt gàtt bu ca nit xamee yow mën nga koo déglu nga jariñu ca te fekk doo xam waaye jamono bi nga ko déggee dolliwu la dara lu waral loolu parce que dafa fekk bi mu jaay bàyyi ko ci xol dafay jaar ci fiilu xel doog a tàbbi ci bi mu bàyyi ko ci nopp day jaar ci fiilu xel tàbbi ci dàmba xol su ko defee bu jaaree ci xol xel fekk xel a nga ca leneen su boobaa xol du ko jariñoo yóbbante bi nag bokk yi ginnaaw bu ñu ñaanee suñu borom mu musal nu ca loola ñu xool benn baat boo xam ni borom bi da ko tudd ci aaya jooju inna fi dalik la dikra ak waaru baatab zikr ak ni muy soppar ñi ko ci biir alquran léeg mu ñëw nekk zikr léeg mu ñëw nekk dikra léeg mu ñëw nekk tazkira waaye bu mu ci mën ci doon ci baat bi ak ni muy soppeekoo benn bi la baat boobu bokk na ci baat yi gën a baamu ci alquran mbokk yi baatam dikr léeg-léeg mu nekk dikr léeg-léeg mu nekk dikra léeg-léeg mu nekk tazkira bokk na ci baat yi nga xam ne ñi jàng quran xam nañ ni bu gën a bari ci alquran bokk na ci baat yi gën a bari lu ko suñu borom baamu te xam ngeen ne suñu borom du baamtu mbir lu dut lu am solo la baat boobu mbokk yi dafay tekki ñetti yëf te benn bu ci nekk rot na ci alquran léeg-léeg zikr day ñëw di tekki xam-xam léeg-léeg zikr dafay ñëw di tekki waaru léeg-léeg zikr dafay ñëw di tekki teraanga te ñett yi seen firi ñoo wuute waaye benn bi la zikr day tekki xam-xam te xam-xam mooy indi waaru zikr day tekki teraanga te xam-xam bu jur waaru ku ko am nga am teraanga nañu seetluwaat baat yi mbokk yu baax zikr day tekki xam-xam zikr day tekki waaru te xam-xam day indi waar te ku am xam-xam waaru di nga ragal yàlla te ku ragal yàlla da nga tedd kon ñetti baat yi ay baat lañ yoo xam ni mutaraadifaat dañoo wuute waaye benn bi lañ borom bi subhanahu wa taala ci baat boobu nag tudd na ko ci ay barab ci alquran jàpp naa ne def ci ay waqafaat ay taxaw seetlu sabab lay doon ci ñu yëgaat nag mbokk yi li nu am lan la boo ci jëloon benn misaal mu nekk nuqtatul bidaaya borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñuy wax ci suratul anbiya ca tàmbali ba sunu borom mi ngi wax ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون sunu borom mu ne yéen ñi gëm yàlla laqad anzalna ñun yàlla wàcce nañ ilaykum ci yéen ñi gëm yàlla kitaaban téere boo xam ne muy bii téere bii sunu borom mu ni ñun yàlla wàcce nañ ci yéen kitaaban téere boo xam ni fiihi dikrukum seeni teraangay adina ak seeni teraangay allaaxira yépp ñu ngi ci biir abdullah ibn abbas comme ni ko mbokk mi waxee nga xamante ni ñu bari ci mufassiru ni tudd nañ ko te ibni abbas ci moom la ñuy toxal wax ji bi muy tafsir aaya ji dañ laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi sharafukum yàlla mu ni wàcce naa ci yéen téere boo xam ni fiihi sharafukum seen teraanga ak addina ju alaxira mi ngi ci biir ki nga xam ni teraangay addina moo ko yitteel sunu borom mu ni wàcce naa lu lay may teraanga ci téere bi ki nga xam ni teraangay alaxira moo ko yitteel sunu borom ni sa teraanga mi ngi ci biir kon teraangay àddina ak ju àllaaxira borom bi da koo boole dëxëñ ko bay na daf fa tey haadal kitaab diggante ñaari fekku téere yi li tax nit di tedd ci àddina mi ngi ci li tax nit di tedd ci àllaaxira mi ngi ci waaye mbokk yi xoolal aaya ji la ci suñu borom teg afala taaqiluun mu yéen xanaa amu leen xel xanaa du ngeen xalaat xoolal li olof yi tuddee romb sa njariñ doomu aadama bi jóg di wuti njariñam mu ñëw ba tiim njariñ li wala njariñ li ñëw ba ci ron xarantay tànkam mu romb ko jàll dañ naan la romb nga sa njariñ ki romb njariñam ñi am xel ñëpp dëppoo nañ ci ni kii moom wérul dafa feebar moo tax borom bi mu ni waaw wàcce naa ci yéen téere boo xam ni teraangay àddina ak teraangay allaaxira yépp maa ngi ko tab tëmbal ci biir ba pare doomu aadama di wute ji teraanga feneen afala taqilun mu ndax yéen am ngeen xel allahu akbar moo tax saa boo seetee nit muy sonn coono bu rëy rëy rëy ci leneen lu dul alquran ba fa alquran jàppal ni kooku amul xel amul xel afala taaqilun mooy xanaa amuleen xel ndax boo amoon xel su boobaa di nga yëg ni nekkate teraanga même bu dee ci àddina ñu ngi koy wutee ci téere bii di alquran aaya jooju na mbokk yi ci tënk bu gàtt boobu kenn ku nekk ci ñun na ko càmbaraat xoolaat ko xool moom fan la toll ci téere boobu di alquran ci même saar bi muy suratul anbiya sunu borom mu ni wa haada téere bii di kaamil bi zikrun baat boobu la sunu borom jëfandikoo zikrun ak waar la ak fàttaliku la ak teraanga la joo xam ni mubaarakun bu barkeel la anzalnaaku ñun yàlla ñoo ko wàcc mu ni afa antum lahu munkiruun mu ndax yéen da ngeen a am sikk sàkk wala weddi wala ñàkk gëm ci lii mooy alquran ji doomu aadama lu muy wut ci kaw suuf mu di njaboot muy alal muy liggéey muy doom muy tool muy meññent lu mu mën a doon barke la ca gën a bëgg borom bi mu ni dikr waar la goo xam ni fàttaliku la goo xam ni mubaarakum dafa barkeel téere bu barkeel la xoolal keroog bi téere bi wàccee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñaata doomu aadama la yàlla teral def leen ay kilifa def leen ay buur fi dunya te fekk ci fonk téere bi ak sonn ci ci la ko borom bi jaarale dikr fàttaliku la ndax lépp lu wees ci ginnaaw rek borom baa ngi ko ciy nettali dikr waar la parce que dafay tooyal xol ba ki koy jàng di magum jëmm jékki-jékki jooy wala mu yëg xolam di fudd te kenn dóoru ko kenn wax ko lu ko naqari kenn saagawu ko kooku wax ji ban poids la am ci biir xolam ba yëngal ay rangoñam di ko génne mubaarak barkeel gee ko waral ay nit sonn ci ba nga yaakaar ni ku ñëwati ci quran amoo loo ci war a mën a wax comme ni ko mbokk mi waxee cheikh mutawalli sharawi di wax ni alquran de téere la boo xam ni yàlla daf ci def li kulli jiilin lahu nasibu génération bu ñëw rek dafa mel ni yow ki ñi njëkkoon doon liggéeyal alquran ñoom fi ñu yem dafa mel ni dafa am lu leen suñ borom xañ pour ñi war a ñëw def ko ci yaakaar naa ni ku xam mufassirun yi mas a jaar ci àddina liñ tafsir quran ku ko xam te mbir mi waroon na doy ko dañ daan bu kenn tafsir ci quran waaye ba tey alquran tafsir koo gi safe ku xam fatiha liñ koy baamu ci ay ci ay bis te ba léegi sàppeegul ci ngay xam ni lii du waxi nit waaye ku xool alquran doon jooyloo ay nit ba tey mu di leen jooyloo di def ay kilifa ba tey mu di leen def ay kilifa la shakka ni am na secret bu ci nekk boo xam ni al alimul xabir kese moo ko xam muy borom bi subhanahu wa taala dhikr waara ngoog goo xam ni mubaarakun gu barkeel la mu ni anzalnaahu ñun yàlla ñoo ko wàcc afa antum lahu munkiruun afa antum lahu munkiruun mu ndax yéen da ngeen a weddi lii wala da ngeen koo gëmut wala da ngeen ci def sikki sàkk ba léegi soo demee ci suuratu Saad sunu baramu ni Saad wal qur'aani di dikr alxurufu almuqattaa fi awaili suwar loola daa bokk ci lii wane fooraayu alqur'an xam ngeen alquran borom bi subhanahu wa taala daf ko tëgg ci baat yu gàtt yi donte tafsiruñu waaye lu bare bari ci mufassir dañ ci wax ay wax yu bare bare bare bari lii lay tekki lee lay tekki lee ala kul xaal ibni kathir boo delloo ci tafsiram ca mujallad bu njëkk ba ci tàmbali suratul baqara dafa indi ay wax yu bare bare bari bokk na ci mooy muy abubakrin muy umar muy usman muy ali ñeenti keno yii nga xamante nii dama ne ci seeni mbagg ci la diina ji tege woon ah damay wax ni ñoom dañ doon wax ni lii day yàlla moo xam li mu ci namm waaye nag day wane ni alquran ci boppam ci xaraf yu mel nii ci la ko suñ borom taxawalee te ba léegi doomu aadama yi mënuñoo indi ay xaraf ba taxawal lu mel ni moom saad ci gën a gàtt qaaf ci gën a gàtt nuun te benn bu ci nekk benn xaraf la xaamiim ñu am ñaar alif laam miim ñu am ñett alif laam miim saad alif laam miim ra ñu am ñeent gis nga noonu nga koy toppee si ci kaaf ha yaa ayn saad nga am juróom baa juróom benn xool leen waxit woowu nga xam ni borom bi mi ngi ko def fi awaili suwar kéemtaan gi ci nekk jëlal téere kaamil nga xool alif laam miim ba nuun saa boo gisee borom bi tudd alxuruf almuqataa fi awaili suwar rek alquran lay tagg alquran lay tagg xaamim walkitabi almubin alif lam mim mu ni dalika alkitab saad mu ni walqurani di zikr xaamim tanzilu alkitab noonu nga koy toppee rek fu mu wax rek tudd fa alxuruf almuqataa di wane ijazu alquran ma nga fay wane ne téere bii kat téere bu sell la ah alif laam miim saad mu ni kitaabun téere ngi boo xam ne uxkimat ayaatu yàlla dafa xereñ aaye summa fussilat min ladun xakimin xabir foo ko dégg rek mi ngi bàkk alquran di ko xàllal di wane foor gu mu foor ak kawe goo xam ne kawe na ko moom alquran ba léegi ci suuratu saad sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ni hada dikr hada muy ismu ishaara lil qarib sunu borom joxañ mu ne hada lii ngeen seen nga xam ne yaa ngi ko tiim allahu akbar nga xam ni doomu aadama dafay gis ak bëtam sunu borom mu ne hada dikr alquran ji waarul ak waar la saa bu nit bëggee ku ko waar rek na dem ci alquran hada alquran ji ak fàttaliku la soo fàttee bëgg ku la fàttali ubbil téere bi hada alquran ji teraanga la dikr teraanga la boo bëggee tedd rek jàpp ci gis nga de sunu borom ne hada dikr alquran ji xam le ni teraanga la teraanga jooju ku ko jariñoo mooy waral am li sunu borom di diggee wa inna lil muttaqin la xusna maab sunu borom mu ni bu ngeen ci jàppee góorgóorlu ci sonn ci yëg leen ni inna lil muttaqin maa ngi waajal ñi ragal yàlla subhanahu wa taala jàppoon ci téere bi ah la xusna maab allahu akbar delluwaay boo xam ni delluwaay bu rafet la bu sell la boo xam ni doomu aadama su delloo dafay yëg ne lam doon def liñ ko fayee ko gën te noonu la yàllay fayee mu ni jannaati adnin mufattaxatan lahumul abwaab ajjana joo xam ni maanaam porte yi sunu borom mu ni ay porte automatique la amul tijj mufattaxatan lahumul abwaab da ngay ñëw ba jàkkaar la bunt bi rek mu tijjeeku di la xàllal fattaxatan lahumul abwaab bunt yépp nag bunt yi fa am yépp mufattaxatan lahumul abwaab teraanga ju doy ni ajana nga am ko yemoo ci am ko ñu teral la ba di la tijjil ay bunte yeeg seegoo du ma wax comme buur damay wax nga nekk buur allahu akbar mufattaxatan lahum al abwaab borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ni yadcuuna fiha bi faakihatin kathiratin wa sharab loo xalaat ci xeeti firwi sunu borom mu ni karab day teew ci sa kanam wa sharab xeeti jus jus boobu musul dégg ci àddina suñu borom mu ne ay paquet ay keesi kees lañ lay tegal te benn may kucceeg morom nga ne ha mu ne wa indahum qasiratu tarfi atrab même sax am nañ ay soxna yoo xam ni yu gàtt ay bët lañ ay soxna yoo xam ni seeni ween du sëgg ay soxna yoo xam ni même âge lay doon atrab hada gis nga fële ne hada zikr këf kaa ngi nii teraanga jaa ngi fii nga daw jëm fa mu dig la ay dig ni haada beneen dig bi gis ngeen ay ñaari haada yi mu ko tëjee haada gis ngeen lii maa tuwaaduuna moom laa leen dig li yowm alxisaab dafa mel ni ku def tadabbur ci aaya jooju biñ la joxoñee joxoñ bu njëkk bi nga daw jëm ci téere bi sonn ci laa shakka ni dañ lay joxoñ joxoñub ñaareel bi haada maa tuwaaduun li yowm alxisaab lii laa leen dig keroog bu ngeen dajeeg man léegi kenn ku ci nekk ci ñun mu def waqafaati boppam xool aay yi alquran ndax moom def na ko teraanga ndax mi ngi ciy jariñu ndax mi ngi ciy fàttaliku soo demee ci surtout zuxruf suma juumut xoolal yàlla li mu wax yonente bi li moo ko bi doon jujju sànq fas tamsik moyal mooy ku ku ne xam na ni mooy ak jafndoog téye bokku ju ci wolof mooy jafndu ak téye te am teel lii mën nañ la koo jox nga sàggan ba mu wadd parce que baat bi ñu la ko waxee moo tax waaye jàpp na ni kitaab bi ci teen bi ñu koy lugat di ko génne ñu jox ko baat bi ni ko teel kenn du ko moyal bu dëgër bo booy wadd rek di dee di daan moyal lañ koy wax fas tamsik moyal sa waay jaf ndul bu dëgër de parce que booy daanu da ngay dee jaf ndul lañ lay wax yàlla mu ne yonent bi fas tamsik jafandul teel bu dëgër billadi uxiya ilayk ci lii ma la wax yi muy alquran est ce que jaf na googu mbokk yi ñun def nañ ko ci alquran fastamsik jafandul billadi uxiya ilayk ci lii nga xam ne loolu laa la wax yu bul xool leleen ni keneen parce que innaka ala siratin mustaqim parce que yow fi nga tege ci yoon wi la ku ndeke alquran képp ku ci ngoy même nit ñi lu ñu jaxasoo jaxasoo lu coow yi bari bari bari yow bul gestu leneen ni keneen parce que fi nga teg sa tànk foofu la fastamsik moyal billadi uxiya ilayka ci lii ñu la wax yu muy alquran parce que innaka ala siratin mustaqim li nga téye moo dëgër lan la téye alquran ji alquran mooy lan mu ni wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun mooy aay ji mbokk mi doon wax sànq wa innahu alquran ji la dikrun laka ak waar la ak fàttaliku la teraanga la joyantiku kaay la jubbantiku kaay la laka ñeel la yow muhammad wa li qawmika ñeel saw xeet wa sawfa tusaluun yàlla dina leen ko laaj mbokk yi ci aaya ji laa bëgg kenn ku ne ci ñun mu joxoñaat boppam wax ak boppam te mu xam ni moom ak yàlla bu ñu dajee amut kuy dox ci diggante bi yow la yàllay waxal wa sawfa tusaluun dinaa la ko laaj wa sawfa tusaluun mooy dinaa leen laaj téere bi téere bi wa innahu téere bi sunu borom ni la dikrun lak sa teraanga la ak waar la ak fàttaliku la joyantiku kaay la jubbantiku kaay la defaru kaay la waaye teraanga la laka ñeel la yow muhammad moom jël na wàllam sallallahu alayhi wa sallam wali qawmika ak saw xeet ñun ci lañ wa sawfa tusaluun dinaa leen ko laaj mbokk yi kenn ku ne ci ñun na sukkandiku ci aaya jooju xam ni téere bi dinañ la ko laaj moo ndax sa waay daa nga ko jàng sawaay mbaa daa nga ko settantal sa njaboot nuñ defoon ak téere bi sa soxna nuñ defoon ak téere bi say relation yaag téere bi buñ la laajee wa sawfa tusaluun billahi alazim ñu bari ci ñun mbokk yi buñ leen laajee yéen relation moo dox sa digganteeg téere bi tontu bu bon ngay tontu tontu bu bon ngay tontu lu ko waral ndax téere bi li mu fees ci ay teraanga téere bi ak ni mu mel téere bi ni ko borom bi wax wa innahu téere bi mu ni la tanzilu rabbil alamin mi ngi wàccee ci féete pare kaw ñëpp muy borom jaam nazala bihi ruuxul amin bi muy wàcc malaaka miñ gën a wóolu ci malaaka yi muy jibril muy ruuxul amin xol al amin sifa biñ ko jox ku wóor la moom la ko yàlla jox ala qalbik bi mu yegsee place bi gën a sell ci cër yi lañ ko jox muy ala qalbik ci xol yi li takuna min al mundirin bi lisaanin arabiyin mubin ci làkku arab bu set wécc wa innahu la fi zuburil awalin tamit fële mu ne tanzilun mi ngi wàcce min xakimin xamid gis nga de borom bi subhanahu wa taala téere boobu ak melokaan yi mu ko jox ci sellaay baaxaay fooraay kayawaay nga mën a toog bisab lëm jàngoo téere bi yow bu ñu la laajee say relation yaa ak alquran nu mu mel looy wax nga mën a jël sa njaboot jàngaloo leen leneen ñu cay réussir ngay bëgg ñuy wan gannaaw alquran te yëgoo dara sa soxna nga fexe ba li nga soxla ci moom muy bànneexal mu lay bànneexal dina ko man waaye ndax yaa ngi koy soññ ci jàng alquran sa soxna nga fexe ba lépp loo xam ni mooy tax seen dund seen relation yéen ñaari way dencante yi mu jekk waaye ndax al nga dem ba yow wàcc liggéey fekk sa soxna toilette ba jekk mel ni jigéen di bel jàkkaarloog borom këram ci ngay gën a kontaan ci nga ñëw fekk mu tiim téere yàlla bi jàng kenn ku ne ci ñun na waxta yàlla rek tax parce que pootu pootum biir néeg la ñunu neen la wàcc liggéey fekk sa soxna mu tiim téere yàlla bi di ko jàng ak wàcc liggéey fekk mu toiletu mel ni jigéen di mel buy sëy ñaar yi ban nga ciy gën a kontaanee foofu nattukaay la booy xamee ndax yow wa sawfa tusaluna bu ñëwee di nga réussir wala déet wa sawfa tusalun dinañ leen ko laaj ñu njëkk ñi nag ñoom wa sawfa tusalun bu yegsee day fekk ndeysaan ña ngi ko doon jàng saa saa nga gis ku dem forwu ba sax nag ba ma nga xam ne yii amagut lii si tàndarma yeeg xeer yu tàcc yeeg yére yu weex yeeg ah yaxi luppi gileem yeeg fu ne da ngay gis ñun dañuy meubler suñuy néeg ak jumtukaay yi àddina ñoom ñu doon meubler seeni néeg ak ay yax ak i xeer ak i nangam yoo xam dañ ciy bind alquran lii ñi jàng taarixu jamaal quran xam nañ ko ndax ba ñu dajale quran da ngay ñëw fekk benn waay mu jóog a jóog a jóog meuble néegam ba mu wër li mu meuble mooy ay yax ay xeer ay yére ay lii ci tàndarma ay ila axiri ngir yooyu ca lañ doon bind alquran kon borom bi mu ne wa sawfa tusaluun dinañ leen laaj li nga xamante ni mooy téere bi sunu borom mi ngi wax ni fa innama yassarnaahu bi lisaanik li tubashira bihi almuttaqin wa tundira bihi qawman ludda gis nga alquran bi bokk na ci li tax yàlla yombal ko njàngin bi subhanallah léeg-léeg da ngay déglu benn sayx mu jàng alquran yow da nga yaakaar ne alquran bi ci kii la ko yàlla wàcce woon beneen sayx jàngaat nga ni kee warul woon jàng kii moo war a jàng keneen jàng nga ni ba ma juddoo ba tey musuma dégg ku jekkoo alquran nii am na benn ndongo bu newoon sunu daara jigéen la defe naa mbokk yi xam nañ ko bu daan jàng quran dama koy wax ni ko alquran moom léeg-léeg mu jekku nit nga di ko jàng ji gàgg ka jobbante ko mu ne ma ne ko yow moom da ngaa jekku alquran jigéen la woon moom laa doon wax ni ko man de li ma gëm laa lay wax boo góorgóorloo tuuti boo amee borom kër bu la meree boo ko jàngalee quran te kontaanu kooku ma mënuma koo seedeel dara dara xam ma ci moom ndaw si loolu laa ko doon wax subhanallah ndax waxuma sax ay neexaay baat ak yooyu waaye ni mu jekkoo quran ak ni mu ko bëggee ni mu ko gëmee léegi la ma benn mbokk di ma fàttali naa ma kooku mooy ki ñaari doomam mokkale woon woon ci daara ja ndaw si dama ni ko yow bu sa borom boo góorgóorloo tuuti sa borom kër bu la meree nga jàngal ko quran bu kontaanut man dem duma ko mën a seede xam ma ci moom dara dara dafa jekku quran jekku goo xam ni bu la koy jàngal sa yaram day daw te it nag da cee sonnoon nag ndax noo ko jàngal ba mu mokkal da cee sonnoon nag faw ci léegi kenn ku ne ci ñun mbokk yi na laaj boppam ya yombal gi ko yàlla yombal xoolal làmmiñ yi kii làkk sàngam kii làkk sàngam kenn yombal gi ko sunu borom yombal ngir ñu mën ci bégal ñi gëm yàlla est ce que yow alquran mi ngi lay bégal est ce que alquran mi ngi lay bégal am na koo xam ne bu kontaanee alquran du ko du ko bu bu meree alquran du ko kontaan loo déedéet wallahi am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla tàggatal na leen seeni xol suñu meroon léegi alquran kontaan loo leen boo leen di jàngal quran ñi kontaan lu waral loolu parce que dafa fekk ni xol bi ci boppam bu dee dafa ñëwut ñu war koo dàggi alquran moo koy dàggi moo koy daas boobu ci liñ gën a xam suñu borom mu ni inna alladina kafaru bi dikri lamma jaahum gis nga baatam dikr inna alladina gaa ñi nga xam ni kafaru bi dikr dañoo weddi fàttali gii dañoo weddi waar gii dañoo weddi teraanga ji lamma jaakum bi mu leen dikkee ah lu ci topp wa innahu la kitaabun aziz allahu akbar innahu téere bi ñi koy wet dañoo xamul la kitaabun téere la boo xam ne aziz bu tedd la fa yàlla subhanahu wa taala bal huwa qur'anun majid alquran ju tedd la joo xam ne fii lawxin mahfud suñu borom da koo teg ba watt ko ba loxolu salte du ko jege lawxil mahfud te barab la boo xam ne laa yamassuhu illa almutahharun bal huwa quranun majid xool sifa bi ko suñu borom jox almajid dafa tedd fi foofu ngay xamee yow li nga màggal ndax li yàlla màggal yaa ngi koy màggal wala déet taadimu sha'air allah taadimu xurumatillah lu tedd la fa yàlla est ce que yow am na tedd nga ci sa xol suñu borom ni la yatihi albatilu min bayni yadayhi comme ni ko mbokk mi sunu cheikh bi doon waxee sànq ahmad kenn munta indi ay caaxaan ba mu tàbbi ci wala min xalfi li waral garanti gi mooy tanzilu min hakimin hamid parce que dafa bàyyi koo ci koo xam ne hakim ku xereñ la te ni mu ko tëddee tërlee gis nga ñi gën a am ak ñor lugawiyuun yi naxwiyuun yi waa balaaga waa mantiq addina bi yépp la xeetu xam-xam bu waay jàng boo xam ne làkk wi wala weneen làkk ngay jàng amut benn virgule boo mën a corriger ci téere bi li ko waral mooy tanzilun min hakimin hamid parce que ki ko wàcce dafa xereñ amul wenn saar nag du caageen li nga nekk jullit moo tax de waaye maandu tey tax amul wenn saar wooy jàng nga naan bii biñ ko ràbbee neexeewut nii déedéet amut loolu dëgg la ñemewuñ ko parce que ay jullit lañ waaye même bu dul woon ak njulite gi maandu te gi war nay tax aaya joo jàng da ngay xam niñ ko ràbbee noonu la uxkimat ayaatu yàlla mu ne aaya ni mu tegalantee nii ci xereña la tege summa fussilat ñoo ko faram fàccee nii arrahman allama alquran xalaqa al insan allama kul te xoolal ni mu ko ràbbalee teg aaya ni mu tolloog birim bi ni mu jekkee nga xam ni ku ko jàng rek loo jéem lu mu ndaw ndaw ndaw affaire bi rafet neex gis nga de tanzilu min hakimin hakim ku xereñ hamid ku ñu gërëm moom sunu borom subhanahu wa taala kon kenn ku nekk ci ñun mu laajaat boppam ndax moom dëgg dëgg dëgg dëgg la bu ñu nee kafaru bi dikri nga ne amande gëm naa yàlla bokkuma ci ñooñu déedéet mbokk yi saxaaba yi ci ñoom la alquran wàccoon bul fàtte loolu saxaaba yi alqurun salaata almufaddala ulaahum siècle yu sell yi ña ci jiitu woon muy saxaaba yi ci ñoom la alquran wàccoon ay juy ñëw di tëkku rek ñoom dañ naan ci ñun la jëm si ñun nag sunu dal xel daa yegg ci loolu loolu nag moo tax jëriñoo alquran ba tey parce que kenn ku ci nekk day jàpp ne waxul ñoom diw ñoom diw lay waxal fekk yow sa bopp la ñuy waxal xoolal suratul qamar borom baa ngi wax ni walaqad yassarna alqur'ana lidikri fahal min muddakir yàlla mu ni alquran maa ko yombal li dikr baatab dikr la jëfandikoo foofu li dikr bu fekkee waaru moo la tax a jóg yàlla moo ko yombal ba lii waare alquran ci gën a mën a waaraate loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci moo tax it waaraate kat kala waaraatem gën a mën a jariñ mooy ki nga xamante ni ma ngay tibbee ji ci alquran dikr yombal nañ mu nekk fàttaliku kaay ku bëgg a fàttaliku alquran ci gën a gaaw teraanga la wala qad yassarna alquran li dikr yàlla yombal na ko li dikr pour nga tedd même bu bëggoon a tedd sax yàlla dafa yombal téere pour nit teddee ci tedd nga nag ñun danoo foog ni mooy waa ji na am kër na am oto na déedéet am na ñoo xamante ni am nañ ko te tedduñu nga gis ku ko ñàkk te mi ngi tedd mbir mi mbirum xol la waaye nekkul mbirum jëmm loolu la ibn alqayim rahimahullah di wax ni am na fii ci àddina ajjana joo xam ne mi ngi lambax lambaxi ci xol yi ku ca tabbiwut doo tabbi ca ajana jële te ajana jooju mi ngi ci xol ku gëm yàlla ibni taymiya rahimahullah mooy wax wax jooju fii ci àddina am na ajana joo xam ni mi ngi lerax lerax yi ku ci tabbiwut ajana jële doo fa tabbi te ajana jooju ci xol ku gëm yàlla nekk loola war a lool nga mën a gis buur boo xam ni mi ngi yor lu dul jeex ci alal nga gis waa joo xamante ni fii kuux kuuxin qadimin baaliya xaawiya ala urushiha xayma joo xam ne su waay ma nga lënd ma nga maxe ma ngay waaj a rab ah moom amut lu ko yëg-yëgam may lu dul naan buur yi de bu ñu yëgoon noos gi nu nekkee danañ génn seen pala yi ñëw xeex ak ñun ndax li ñuy dund daa neex kooku li muy dund lan la mbokk yi kooku lan lay dund yow koo xamante ni daanaka ñeex mi ngay siimee sa care doyut dàll yoo xamante nii man nga koo sol moo tax benn borom xam-xam dafa xool imam ahmad ibnu hanbal ba mu yàgg mu di ko tagg mu ni man di jaaxle naa waa joo xamante nii dàll yi mu doon sol fukki at ak juróom-ñaar sol na ko ko muy dagg muy dab daaxe te moo gën a neex dund buur ya ba buur ya di ko ko seedeel mamun mu'tasim waafiq xoolal ñim dajal ñoom ñëpp dañ koo ñeewoon moom ahmad ibnu hanbal te ay dàllam doon na ko sol fukki at ak juróom benn wala juróom ñaar comme ni ko imaamu zahabi di waxee ci séeru alami nubala kon da lay wan ni mbir yi maanaam nattukaay yi du fi ko nit ñi nattee waaye mbir mi mbirum xol la borom bi subhanahu wa taala mu ni alam yani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dikrillah léegi nag xanaa nag jot na nag loolu la aay ji tekki léegi nag alam yani loolu la tekk ci wolof alam yani xanaa nag léegi nag xanaa jotut nag lilladina amanu ñeel ñi gëm yàlla an taxshaa mu fuddutu an taxshaa mu toroxlu an taxshaa mu fàttaliku suufe suufe lu taataan pour jariñu li dikrillahi ci dikri bii di alquran mbokk yi kulluna yasmaau daka rajulu zahid alqaanit alwaria attaqi muy Fudayl ibn al-Iyaad Fudayl ibn al-Iyaad balaa moo nekk ki mu nekk agresseur bu mag la woon bu jéggi dayoo sax ci am mën a agressé xam ne nit ñi dañ ko ragaloon lool nit ñi dañ ko ragaloon lool lool lool ba jéggi dayoo ndax ponkal la woon mu yàlla mayoon jëmm Fudayl ibn al-Iyaad dafa jóg benn guddi di dem di agressé ci benn kër mu tëb miiru kër gi ba ne cëp fekk am na kuy naafila ci digg ëtt bi ndeke waa ji mi ngi jàng aaya ji alam yani lilladina amanu mu nag xanaa jotut nag ñi gëm yàlla an taxsha qulubuhum li dikrillah seen xol yi nag léegi mu fuddatu nag toroxluwaat delluwaat ci yàlla xanaa léegi mbir mi jotut fu doy nee na fi mu taxaw mënatu fay jóg te boobu danoon agressé ji nee na mu tëbaat miir bi génn bi mu tëbee miir bi génn nee na mi ngi dox xamut fu mu jëm ndax aaya ji ci boppam xoolal mbokk yi kuy agressé ndax kooku xelam dana nekk ci ay génne azaka ak ay julleeg ay woor kooku xolam ndax daana déglu alquran kooku xolam ndax toll na fi nga toll yow ci yi ngay déglu ci ay waaraate bu ko déglu woon dana agressé déedéet kon xolam sori woon na wol njub waaye li muy sori sori sori njub baaxaay ba tax na bi mu déggee jenn aaya ji moo feree ne ay tànkam nee na muy dox di dox ba ci benn garab mu toog ci garab gi fi mu toog di xalaat man man maa bon man maa yées xoolal nit ñëpp seen xol yaa ngi toroxlu ma fi mu waxee loolu rek nekk benn ay caravane ñi ngi teew ci pegg bi benn waay mu naan jug leen gaaw ngeen préparé balaa ñëw Fodayla fekk fii bu ñu fekkee def ñu lu bon Fodayla nee na bi ma déggee loolu ma ni man maa bon man nag léegi dem naa ba léegi nit ñi ñoom dañ maa ragal ba di ma sóor te man ragaluma yàlla bi ma bind ba sóoruma ko keroog jour boobu la tuub moom Fodayla ibnu al-Iyaad bis boobu ci la tuub jenn aaya jooju moom la jàng moo karwaase xolam jenn aaya jooju moo ñuqati li nekkoon ci ak fisq ak fujuur ci biir xolam mbokk yi benn aaya boobu mu mën a rocc fisq ak fujuur ci biir xol ku gëm yàlla nangami aaya yi ngay dégg est ce que yow mi ngi so rocc fisq ak fujuur ci sa biir xol loolu su àll la boo xam ne kenn ku ne war na koo laaj boppam su aala ngoog boo xam ni kenn ku ne ci ñun war na koo laaj boppam kon ci tënk bu mel noonu ci aayaat yi nga xamante ni moo rot ci téere bi ay firndee ngi kalla innaha tadkira kalla innahu tadkira ah inna hadihi tadkira yi yëpp borom bi da koy wax di wane waara ngi ak fàttalikoo ngi ak joyante ak jubbantikoo ngi li ma bëgg a wax foofu mooy mbokk yi fisq ak fujuur mooy ak caay-caay saay-saay saay-saay ab fa ab fa alfasiq mooy ab saay-saay fisq nag mooy caay-caay gi muy def fisq mooy caay-caay gi muy def fujur tamit kadalika ak caay-caay ku bon banditisme rek alfajir saa boo gisee fajir rek mooy bandi mooy ab bandi ci alquran maanaam bandi boobu nga xamante ni loolu la doon def caay-caay gi mu doon def yooyu yëpp tuub na ngir benn aaya bu mu dégg ñun nag ñu ngi dégg aayaat yu bari li ma bëgg a wax mbokk yi mooy aayaat yu mel nii boo ko toppee ci alquran da nga gis ab lim moo tax ma ne la bari na lool. léegi nag laaj bi nga xam ne mooy yóbbalu kenn ku nekk ci ñun mooy man fan laa toll ci téere yàlla bi fan laa toll ci téere yàlla bi ndax maa ngi koy jàng ndax maa ngi koy settantal ndax bëgg naa ko xam nga ñun koo laaj ndax bëgg nga alxuraan waaw lay wax waaw kay waaw waaye problème bi mooy est-ce que waaw jooju waaw la joo xam ju valable la sharia dina ko valable la parce que bëgg ci nit kat nit ki lim bëgg lim bëgg kat sëñ bi dafa am lu muy fu mu ko fu muy feeñee ci moom ku bëgg ab wata wala nga bëgg ab kër wala nga bëgg ab soxna wala nga bëgg ab jigéen wala bëgg borom kër bëgg googu day feeñ ba nit ñi même boo ko waxul sax dañ koy xam yow sa bëgg gi nga bëgg ak fan fan la feeñ ci fan ndax daa feeñ ci yow ndax daa feeñ ci sa soxna ndax daa feeñ ci sa njaboot te ku ne nag na yëg ne am na wàll ci xidmaal téere bi di alquran am na koo xam ne sëriñ daara la yàlla moo ko baaxee mu mën a toog di ko jàngale ko am na lu rëy xayrukum man taallama alquran wa allama allahu akbar mbokk yi ñoom xaalid ñi ngi toog ñoom abu dar ñi ngi toog ñoom abdurahman ibne awf ñi ngi toog kibaaru saxaaba yi ñi ngi toog mujahidun yaa ngi toog ña demoon badar a ngi toog ñi demoon uhud a ngi toog ak ñoo xam xolal benn dem ba badar rek ñu ne la loo defati yàlla baal na la benn dem badar dem na ah diw nangam nangam mu ne wallahi la la yadxulanna xaatibun innaar giñ naa ci yàlla yonente bi xaatib dana tàbbi sawara mu ne ko kadabta wax nga lu du dëgg de lim def kay bon na waaye nag laa yariju naar rajulun bayaa taxta sajara kon ndekki nit ki mën naa am ci ay bàkkaar lu bare bare bare bare ba nga yaakaar lii mën na caa toroxee fekk am na lu baax lu ko suñ borom réserver loo xam mën na koo fomp ndax innal xasanaat yuzibna sayiaat yàllaa xam ban la ca xoolal ñun ñëpp toog cadre yaa ngi toog cadre yi yonent bi wëroon yonent bi ni xayrukum yéen cadre yi ki ci gën allahu akbar alxayriya xayrukum ki gën ci yéen mu ni man taallama alquran mooy ki jàng alquran wa allamahu di ko jàngale waxuñu la yoral daara nit mën naa jàngale quran te du yor daara di mën naa nekk de déedéet dindi day yaakaar ah kon de man aw ma sens parce que déedéet yow jàng ko ba nga man ko même bu dee sa jabar nga koy jàngal insha allahu di nga bokk ci xayriya gi gis nga kii moom lim man ma danaa ko nettali ci benn jotaay am na benn maire dafay wax ci bëgg gum bëgg Qur'an day wax ni moom day bu ko ko wéram mayoon day jege benn daara comme moom mën na fóot muy fóotal waa daara ji ngeen mu bokk ci xayriya googu am na ku jigéen ku ñu xam ku ñu ma sa nettali koo xam ne moom day dem jënd ay téere dajale ko day liggéeyal bu dajalaatu tut dem yóbbul ko sëriñ bi ni ko ñuy séddaleel ma ko xale yi ndax ma bokk ci xayriya gi am na mbokk moo xam ne ay sanawaat moom moom xam naa ko moom ay sanawaat xanaa lee mu jege fukki at de waaw war na ko mat de yoo xam ni moom ni muy xidmaale Qur'an mooy da dem ca àll ba gori ay dute bu ko defee ñëw jox ko ay daara mbokk mi xam na ci dara man xam naa waa ji allahu akbar gis nga mbokk yi maanaam yërmande suñu borom lu waa lu yaatu la su ko defee kon kenn ku ci nekk mbokk yi na gën a góorgóorlu ci alquran li may jeexale nag mooy sunuy njaboot sunuy njaboot laajal sa bopp laaj bii may bëgg a wax soo paree nga yóbbaale tontu bi saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain bu doon ñoo dellu siwaat jamono fekk fi lii ñu fi fekk ndax ñoom ñun ni ñuy def sunuy doom ñoom noonu la ñuy def seeni doom laaj boobu man du ma ko tontu ndax kenn ku ci nekk loo ñàkk ñàkk ñàkk jàng am na loo xam saxaaba yi bu ñu dellu si woon ñun ni ñuy encadré suñuy doom est ce que ñoom noonu lañ nar a encadré seen i doom encadré seen i doom kenn ku ci nekk na laaj laaj boobu muy benn beneen bi ci des mooy te dañ koy ñaanal suñu mbokk mi yal na yàlla defal ko ko defal ko boo dem julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ni yàlla dina teewal way juru góor way juru jigéen toogal leen ci piliyaanu or solal leen baxanay or defal leen leen ci ay teraanga yoo xam ne xam ngeen nit ku nekk li nga def ak li nga deful xam nga ko xam nga àllaaxira am na lu ñu la fay décorer loo xam ne te yaa nekkoon ci àddina xel ma moo dellu siwaat di nga xam ne lii defoo ko fi yow mu laaj borom bi subhanahu wa taala lii fu mu bàyyi koo suñu borom daal di koy tontu ni ko ci sababu góorgóorlu gi ngeen góorgóorlu woon ci seen doom ba mu mokkal téere yàlla bi allahu akbar waaw xoolal amin ki ki ki nga xam ni moo jur ki ko def moom lañ teral lii fa kay fa ka ko ka ko def moom ndax yaakaar nga ni di nga sonn lool ci sa doom def ci sacrifice bu nekk ngir mu mokkal téere yàlla ban sens moo tax ñu nekk mokkal ko day tax mu nekk ministre déedéet du fii ci àddina mokkal ko day tax mu nekk député déedéet mokkal ko day tax mu am ci cëri àddina yii ñu xam ñun déedéet kon am na leneen loo ci séentu loola muy yiw yàlla na borom bi defal nu ko nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم gone yi nga xam ne ñoo mokkal téere yàlla bi yàlla na yàlla sàmm leen sàmmal leen wattu gi te it mbokki julit yi nga xamante ni seeni doom mokkal na ko ak ñi nga xam ne seeni doom ñi ngi ci yoolu yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla boole ñu min ahli qur'ani wa xaasati yàlla na yàlla musal nu ci lépp loo xamante ni mooy fitna ma dahara minha wa ma batan allahuma ijal alquran alazim rabia qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zihaba humina wa gumumina birahmatika ya arhama الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين